aleykum wa rahmatullahi wa bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di bisub àjjuma di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci ndayi ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom mbokk yi xam ngeen ne ndeyu koor te mooy weeru rajab mi ngi tàggoo ndax ci biir weer wi jox nañu ko àqam ci bari ay la ak jaamu yàlla ak jëf yu yiw ndax bis bu màgg bi nga xam ne mi ngi ci biir ndayu koor moom it jox nañ ko àqam ni ñu joxe àq weer wi ci màggal ko ak sant ci yàlla wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwa al kon bis la boo xam ne euh, mat naa sonn mat naa fonk kon lu ci waaye doon góor góorlu na ko jëme kanam te bañ koo wàññi ndax nit suy def te xam ne bis dana ñëw mu taxaw ci kanam kam doon jëfal muy ndaw muy mag war naa bàyyi xel bis booba kon nag ndey koor daanaka jeex na weeru baraxlu moom la ñuy séentu muy gan koo xam ne su ñëwee nañ ko teral teraanga jiñ koy terale nag weesuwul tuubal yàlla ci tooñ yi ñu koy tooñ fas yéene laab ci ay bàkkaar fas yéene sunu boroom faral na sunuy bàkkaar leeral sunuy xol jàppandalal ñu jëf ju yiw te musal nu ci safara te defal nu tawfiq ba nu jege sunu boroom yàlla na ko yàlla boole defal xam ngeen ne weeru rajab bi muy ndayukoor di tàggoo day weer woo xam ne euh, dafa am ay xew-xew yu ca xewoon ceddo yu dëkkoon màkka dafa am ay jamono ñuy reetaan aka a ñaawal euh, ku tedd ka muy rasulullahi sallallahu alayhi wa ndax dafa am nattu yu diis yu tegaloo yu tegu ci kaw nattu yu ba ci jëkk moo di bàyyi taxam di abu taalib ibnu abdul muttalib doonoon bàyyi taxam doonoon kiiraayam daa ko ñag dawul nangu kenn laal ko dafa génn àdduna ñu teg ci fan yu néew soxna xadijatu umul muminin doonoon soxna soo xam ne pas-pasam ak taalibeem ay jëfam ak taxawaayam mënees na cee yendoo waxtaan moom itam mu génn àdduna ñu defe ne fa lay yem wax yu bi daan wàcc di bàyyi ko ci sunu boroom te Seyduna Jibril daa ko indi mu xëy xëy mel ni dafa taxaw ñëwatul te wolof yi dañuy wax ne ab kàccoor waxul dëgg waaye mën naa yàq am xel yéefar yi nag di wax ne Muhammad day boroomam da ko jàmbu boroomam da ko wan ginnaaw boroomam da ko mere te booy xool Abu Taalib sunu borom moo jël bakkanam soxna Xadija sunu boroom moo ko fi jële Jibril tam ndaw la loo xam ne bu ñu ko yónnee mu ñëw waaye bu ñu ko yónneewul du ñëw kon mel na ni lépp jëfi sunu boromam moo tax ñu ne kii day boroomam wan na ko ginnaaw jàmb na ko yàlla nag weddi loola wàcc saaru wadduha wa layli ida saja yàlla giñ ci bëccëg ak guddi sunu borom lu ko soob mu giñee lu ko soob mën na caa giñ wal fajri wal layli wad duha wa shamsi nuun wal qalami saadi wal quraan lu ko soob mu giñee waaye nun ñi nga xam ne nag nooy ñooy ay jaamam sañu ñoo giñ ci lenn lu dul yàlla yàlla na giñ ci bëccëg ak guddi ne ko maa waddaaka rabbuka rabbuka wa maa qala sa borom day jàmbuwu la wanu la ginnaaw ne ko walal axiratu xayrun laka min al sa ëllëg ju ne dana gàcceel sa tey sa ëllëg ju ne mooy gàcceel sa tey ne ko sa boroom dana la jox euh, lu baax di la ko jox bam mu doy sëkk ba nga gërëm walla wala sawfa bu rabbuka fa tarda mu indi ko nag indi ko indil ko ay firnde yoo xam ne su ko waxee lii xelam war naa dal ndax fa mu tàmbalee ak fa mu jaar moom moom la ko indil mu ne ko sa borom dalaa fekkoon ngay ndaw loo xam ne amoo ndey amoo ba amoo fenn foo sës sa borom féete la foo xam ne ndey munu faa féete bàyyi munu faa féete mu ne ko alam yajidka yatiimam fa aawaa sa borom fekkoon na la jàngoo munoo bind amoo xam-xam euh, mu sol la xam-xam ba nga fees dell gindiku bay gindee sa borom def na loolu wajadaka daalam fa hada sa borom fekkoon na la amoo dara tëqoo dara euh, mu jox la ba soxla soxlaatoo yëfi kenn ndax am nga lu doy sëkk ndax soxna Xadijatu la mu yoroon lu bari la te lépp da ko def ngir taxawoo ko lislaam ak jàppale ko sëriñam muy sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ko wa wajadaka ailam fa agna yàlla mi jaar ak yow foofu nag danga nga koo war a sant cantug jëf door koo sant cantug lam santug làmmiñ cantug jëf mooy jiitu mooy boo gisatee ndaw loo xam ne dafa ñàkk waajur amul fenn fu mu sës da ngay fàttaliku ne mos nga cee jaar su boobaa bul ko néewal doole moo tax mu ne ko fa amal yatiima falaa taqhar boo gisee te mag moo xam ne amul njël amul njël amul doole moom itam dangay bàyyi xel ne mos nga cee jaar kon bu ko naqaral ne ko wa amma saa'ila falaa wa amma saa'ila falaa kon yooyu moom cantu jëf la mu sokkoon ak digal mu mu koy sant cantug làmmiñ muy xéewal yi ma yi ma la defal saw làmmiñ bu ci jóg dee ko wax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis kon jaam gi na boole di sant yàlla cantug xol ak santug jëf ak santug làmmiñ kon ñi doon wax ne sunu borom da koo jàmb da koo wan ginnaaw da koo bàyyi sunu borom wax ko lii ba noppi nag sunu borom yemul ci lii yemul ci lii mu ko wax fekk koo xam ne jàngul dara nga jox ko xam-xam fekk ko amul dara nga jox ko ba mu doy fekk koo xam ne amul wayjur nga féete ko foo xam ne wayjur mënu ko faa féete yooyu yëpp sunu borom bu ca yemoon mu doy sëkk waaye da caa yemut waaye nag da koo rañaane da koo rañaane moo tax ceddo yi lañ doon wax naan kii boroomam da koo jàmbu da koo wan ginnaaw da koo fàtte sunu borom wax ko lii defal ko lii kon day moom yonent bi am na ndam alayhi salaatu wassalaam moo tax ku baax ki ne am na ndam ne qad xaaza faxara min xiina asra bil jismi jahra bil amtiraay nee na am na ndam de ba mu rañaanee rañaan goo xam ne du janeer du gént waaye jëmmam euh, moo ànd ak ruuxam dem rañaani muy nag bàkk sunu boroom di wax ak mbaaxam sunu borom mi nga xam ne moo rañaane ab soppeem euh, ci guddi googee ngir bëgg rek mu gën koo jege bëgg rek mu gën a sori ay noonam mu ne akrim bi rabbi asra bi xib bi laylam bi qurbi maal baraa i mu ne day guddi googee day dafa rañaan gannaaw ba mu laabee euh, ànd ak mbég dem fekki ña nga xam ne ñooy ambiya ya ko jiitu qad baata yasri min baadi tuhri mu diima bishri fil ambiyaa yi ba muy dem nag moom mi ñu wóolu dafa ànd ak ka wóolu muy jibril war ca kaw la ñu wóolu muy alburaax dem fekki soppe yàlla ya tànne fi yàlla ya mu ne sural amini maal amini fawqal amini lil asfiyaa yi ba mu demee nag fekk yonent yépp ca baytul maqdis ndax yàlla nee na subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu al basir te bokk na ci kimtaani yàlla nga fekk fa mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp dañoo génn àdduna bu yàgg nga fekk leen ñu sàppe di la nekk ngir nga war a leen jiite julli moom la ko ku baax ki naan yow day yaay ilim ilimaani ñi yàlla yónni woon ndax dañoo soloo ne ñoom ñëpp guddik rañaan ga dañoo dajeek yow teeru la nga jiite leen ñu topp ci sa ginnaaw la anta imaamu rusli qad jaa annahum talaaqawka fi l israai wal qad salla ba mu uh, defee loola ba noppi nag dafa daal di yéeg nag wuy ji sunu borom dem ca kaw usalli ala saarin sama fawqa al buraaqi lis sama muhammadin man karuma bi xisbihi wa sallimi dafa fanaane xotti diilay asamaan dem wuy ji boroomam ndax tawfiq ja ko sunu borom defal moo ko tax a jóg te yonent ya mu fekk baytul maqdis ñun ñoom ñëpp dañ ko teeru teral ko xad baata yaxriqu tibaaq fi leyli qaasida wifaaq wal ambiyaau bi ittifaaq laa qawhu bi takarrumi waxtaramu wa qaddamu wa karramu wastaslamu tawaaduan wa azamu li qadrihi almuxtarami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 درب أكبر الله أكبر لا إله إلا الله moo tax ba mu demee baytul baytul maqdis ba jiite mboolem al wa wal mursaluun daf leen fa bàyyi nag yéeg ca kaw fa gaaba anhum wartaqa fawqa alburaaqi li liqaa xabibihi waxtaraqa xujbal ilaahi almunimi dafa yéeg ca kaw war ci kaw alburaax ngir dajeek soppeem ba muy sunu boroom xotti kiiraay yi nga xam ne muy kiraay sunu boroom loolu saaro way nettali muy wan najmi ida hawa kon diggante màkk ak madina mooy al isra saaru al isra moo koy nettali waaye diggante euh, al masjidul aqsa muy baytul dis ak dem ci kaw nag saaru wan najmi moo koy nettali wan najmi gis nga yàlla mu ngi giñ ci biddiw ida hawa biddiw su fàqee yàlla ne maa dalla saaxibukum seen waa jii dey réerul xam na li muy def xam na li muy wax te teg tege na ci aw yoon Oumar Awa doonul ko xam dëgg ba noppi di ko wàcc seen waa jii de Oumar yantiqu anil hawa doonul koo xam ne day waxe bàkkan ndax ba mu ñëwee di nettali li muy wax dafa yéeme dafa ub ub seeni bopp mu ne nag kii li muy wax waxewul bakkan in huwa illaa wahyun yuuxa kii lu mu wax dañ ko ko waxloo allamahu shadidul koy jàngal mooy borom kàttan lu tar la mir miratin fastawa muy koo xam dafa boole am kàttan ba noppi neexe xool ngirub taaram woo mu ne ca kaw li muy wax nii mooy malaaka mam àndaloon muy jibril summa dana fatadalla mu jege ko sandaamtalu fa kaana qaaba qawsayni aw adna mu jege ko lool ba mu ko jegee nag sunu borom di wax yu jibril jibril di ko jottali sirna muhammad sallallahu alayhi mu ne fa awxa ila abdihi ma awxa yàlla wax yu ko fa lam ko wax yu nga xam ne kon moom rek moo xam yàlla mook yàlla ak jibril moo ko jottali maa kadabal fuaadu ma raa te la mu gis nattabliwu ko xam na ni lii mooy dëgg kon yéen yéen gisul dara bëgg a moom ana fu mu tege afatumaaruunahu ala ma yara sunu borom wan ko fa yu bari xamal ko fa lu bari ndax nee na laqad raa ayaati rabbihi alkubra gis na fa lu ne ci kiimtaani sunu borom yi te kat fanaanul àll mu wan ko àjjana wan ko safara wan ko la àjjana làmboo ak safara làmboo ñiy jubal ëllëg seenub añ ñii dëngal ëllëg seenub añ wan ko fa yu baree baree bari ñu jox ko fa am ñollu ak ak ak ak soow mu tànn soow ma jibril ne ko euh, yow di am nga taw féex boo tànnoon ñollu mi sa xeet wi dañuy bew yu baree bari moo fa xew mu daal di wàññiku ci guddi gi nag ñibbisi màkk ci guddi gi summa li daarihin sana waqat xawaa kulla muna la mbëggoon lépp am na ko minhu adhaba al ana wa jalibaati niqami waxaat na feneen qad aaba layla qad sabba nayla qad faaqa sayla min zil baqaa'i qad jaabi mayri li ahlil xayri muy julli juróom yi nga xam ni moom la moom la àndaale kon nag cedd ya wax naan suñu boroom da koo jàmb eh, seen pexe sottiwul moo tax mu ne wa dayri ahlu shaqaa'i kon daal ca dëgg dëgg dëgg kii nga xam ne mooy ngën ji mbindéef ay darajaam ay mayam ay tawféexam ay ngërëmam ab xam-xamam ak la mu gis ak la mu dégg kenn xamu ko kudul yàlla moo tax ku baax ki ne maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mughayabatun fal taqra an nañ najmi soo jàngee nañ mi bii ñu doon jàng léegi da nga xam ni comme moom yàlla da ko beral loxo defal na ko lu musta defal kenn xamal na ko lu musta xamal kenn kon léegi ñu jublu ci xutba bi nga xam ne mooy bi imam bi di war a jàng ginnaaw bi mu santee yàlla julli ci ngën ji bi dafa wax ne yéen nit ñi na ngeen xam ne dee jege na lool te lu mu jege-jege yàlla ko gën a jege te yàlla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 wa yu'ti kulli zi fadlin la kon nag di tuubal yàlla di ko jéggalu ku ko def danga nga baaxle tey da nga baaxle ëllëg nañu xam ne baraxlu day weer woo xam ne dafa da ci diggante ñaari weer muy ramadaan ak rajab moo tax saxaaba yi laajoon yoon bi sa sallam ne ko dañoo gis rajab nga ci woor chaabaan euh, nga ciy woor loo xam doo ko woor ci wenn weer mu ne leen day weer woo xam ne ñu bari ci nit ñi dañ koy sàggane ndax wi ko jiitu dafa màgg wi ci tege dafa màgg moo tax nit ñi di ko sàggane man ma di ko fonk ndax bëgg bu ñuy yëkkati jëf ya ñu yëkkatiwaale sama jëf ju baax xutbam ñaareel bi mu ne bi ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu maa ngi leen dénk ngeen ragal yàlla ndax ci ragal yàlla képp la mën a jaar ba tàbbi àjjana maa ngi di tere mooy yàlla ndax koo gis mu dem ci ab safaan ëllëg yàlla nu ci yàlla musal mooy yàlla moo tax mu dem ci ab safaan nee na ñi nga xam ne ñi ngi góor góorlu ci jaamu yàlla texe nañu ñi dëddu àdduna jiitu nañu raw nañu ñi jaamu yàlla su ëllëgee danañ am ay daraj yu kawe kawe kawe ñi doon def lu rafet su ëllëgee suñu borom fay fay leen ba buuñaa leen ndax moo ne ku def lu rafet ma fay la ba buuñaa la waxal jazaa'ul ihsaani ilal ihsaan ku def lu rafet lu rafet rek nga moom rek moom rek ngay mën a ngay mën a am euh, nee na yun saa sallam nee na taafeer wala fanweer nee na na ngeen woor su ngeen gisee weeru barax li wii di waaja a tàbbi nga xam ne suba la séentu ëllëg suba la séentu bu njëkk buñ ci tàbbee nee na ba am ñaar fukk ak juróom-ñeent na ngeen séentu bu ngeen gisee ngeen um bu ngeen gisul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 wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu an laa أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الملك الديان الكريم المنان خالق الإنس والجان وغافر الذنب من استغفره ومسعب الخير في شعبان أحمده سبحانه وتعالى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم اما بعد فيا ايها الناس قد علمتم ان الموت قريب والرب رقيب وما التسويف وقد مضى العمر وأنتم في تيه الغفلة تلعبون كم تسمعون المواهظ وأنتم عنها غافلون واعلموا أن شعبان قد أظلكم بأيامه الكرام فأكرموه ولو بصوم ثلاثة أيام وتوبوا إلى الله وقدموا بين يديكم صالح الأعمال ولا تتبعوا خطوات اللعين الشيطان وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وفي الحديث قال شعبان يا ربي جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي قال جعلت فيك قراءة القرآن الحمد لله الذي لا تدركه لا تدركه العيون ولا تمثله الظنون وتاهت في كيفية عظمته العارفون taxayyara fi azaliyatihi almutafakkiruun wala yuqaalu ayna kaana wala kayfa kaana wala matee kaana wala ayna yakuun أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي شرف به الأنبياء والمرسلون صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فبالتقوى تدخلون الجنان وأنهاكم عن المعاصي فبالمعاصي تعذبون بالنيران فاز المخفون وسبق الزاهدون والعابدون إلى أعلى منزل ومكان أحسنوا فلهم الحسنى وزيادة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وفي الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اذكروا الله يذكركم ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين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 ربنا لك الحمد الله أكبر الله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 حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر الله allahu akbar asalaamaaleykum. asalaam.